ñëw ci euh, Jules euh, Souleymane les partis politiques dañ leen a war di financer euh, xëy na dina permettre ñu éviter yenn origine yi ñuy yi ñuy fonctionner tey jii nii le débat pose parce que dañu jékki-jékki rek gis benn nit ci paysage politique bi mën naa joxe exemple ci yenn ah, MPR Amidou Thiaw dañoo jékki-jékki rek gis ko noonu dëgg la seen Sénégal boo xam ne il a fait ses Euh, nañ ko waxee sax il a été à l'étranger liggéeykat la xamee nañ ko loolu mais aussi euh, est-ce que c'est c'est rassurant wala est-ce que c'est prudent pour les Sénégalais de découvrir un visage comme ça du jour au lendemain ñu dégg que ne moo fayoon caution Pape Djibril Fall par exemple tey jii nii il est candidat à la présidentielle ndax pare ngeen yéen pour euh, justifier li nga xam ne mooy origine fonds yi ngeen di marché politiquement merci beaucoup Mamadou question bu am euh, Samba jeexale mm-hmm. mooy la ñu lu lu lu uyee fii lu ko tollale fii mooy nous avons la rationalisation des partis politiques nous avons plus de deux cents partis. trois cents même waaye. Ouais. plus de deux cents cents. <laughs> léegi lu ñu war a def mooy nañu respecter état financier yi amul benn parti politique wala ñenn ñi ñoo koy respecté. bëriwul en tout cas. ñun en mm-hmm. tout cas chaque fin janvier ñu yóbbu suñu état financier. Ah. comme nu ko Samba waxee léegi. Mm-hmm. léegi nag état moom moo war a vérifier loolu noonu. lii ak lii c'est douteux ñëw leen ngeen expliquer fan ko jëlee. Mm-hmm. pour revenir ci kaawu Amidou Thiaw. c'est un boo xam ne euh, ni nga ko waxee léegi ba jàng jotee dafa jàng mu dem liggéey à l'étranger jàng foofu ba pare liggéey banque mondiale liggéey fu mel ni Pojo dellusiwaat am teraangam ba pare ubbi ay société au niveau du Sénégal ay doomi Sénégal di si liggéey donc loolu ça montre que ne euh, ëppi ñun suñu au niveau du parti dafa am ay cotisation yoo xam ne ñu koy def ñun su xaalis jógee bitim réew sax pour ñëw jàppale. duñu ko nangu. Mm-hmm. parce jàpp ne ñun. avant de faire la politique xam nga léegi li nga wax ni dafa dafa doy waar parce que da nga ne tey Sénégalais est-ce que dinañ gis kenn nii rek mu indi xaalis. Mm-hmm. da leen di jommal parce que lu ñu tàmm gis mooy un Souleymane boo xam ne mu ngi woon ci koñ bi liggéeyul bayul yettul. Mm-hmm. dugg ci politique. commencé yëkkati étage mm-hmm. commencé dawal 4 x loolu bëri na fi trop te loolu mooy scandale au niveau du Sénégal. je pense que foofu lañ toll xool naka la ñuy def ba juguler loolu mi nga xam ne mooy moo fii ci Sénégal. léegi ñun lu ñu wax mooy nit ki avant ngay créer parti politique. war nga am sa liggéeyu bopp liggéey boo xam ne yow da nga koy liggéey ñu xam ne kii lii mooy liggéeyam. Mm-hmm. mais tey ñu si bëri dañuy def politique daf ko liggéey amuñu métier. raccourci la la exactement koo si wax mu ne la man consultant la consultant en quoi. mais assemblée j'ai vu quelqu'un nee na. non si sérieux baara consultant la. consultant en quoi non ministre Abdoulaye Macky Sall yi ñoo xam ne amuñu woon liggéey ah. mais loolu la. amuñu liggéey mais nag yow su dee amoo liggéey. su la joxee xalal xaalis boo xam ne dafa war a dem si askan wi. da nga koy def sa bopp te foofu lañ foofu lañ war a dépenser. léegi nag pour financement parti politique yi xam nga comme euh, prétexte bi nga jël léegi. gis nga Ousmane Sonko mi nga xam ne moom la ñu tudd. Mame Mbaye Niang ba mu koy yóbbu euh, porte plainte diffamation la ko toppee woon. Mhm. député bi ñëw na wax na. comme yéen da yor. Mhm. Euh, yoon yaakaar naa ne comme ni ñuy wax dafa tëdde njaaxaanaay am na ñu koy am na ñoo xam ne jàpp nañu tëddeewul njaaxaanaay mm-hmm. mais nañ ko yóbbu fu mu ne doonee benn moom mu indi preuve mm-hmm. leneen li mooy immunité parlementaire bi nga xam ne dafa am Sénégal war nañu xool naka lañ koy saytoo Momadou. Mhm. parce que mënuñu concevoir un député bu toog à l' assemblée na yow da nga am malaanu kiraay boo xam mhm. ne moom moo la ëmb alors que sénégalais lambda bi moom su waxee tuuti ñu jàpp ko ne ko mhm. kaay leeral li donc loolu tamit foog ñu justice nga xam ne tey moo fi nekk dimbale sénégalais yi parce que mënuñu man député rek damay wax lu ma neex di sànni nii rek di accuser des honnêtes hommes yoo mais loolu lañ war a def nañ def comme nuñ ko defee Mame Mbaye nu leen ko Mame Mbaye defee je les ñuy def la même chose. pour loolu leer aussi ci bopp sénégalais. c'est important mais jàppal na ñun suñu président Amidou Thiaw liggéeykat la dafa am liggéeyam du chômeur du consultant te dafa am ay sociétés. <laughs> jërëjëf Bara.